njiital collectif producteurs yi ak exportateurs yu gerte gi di ci am àndul ci ñi nga xamante noonu la état bu Sénégal di doxalee joxem jiw mi. nga xam ne anam bi nga xam ne gouvernement bi mu ngi koy joxee jiw ñun ñun wax nañ ko waxati ko d'accord ci parce que tant que ñi ngi jël ay opérateur di leen jox jiw naan dem leen yóbbu ko ci diw bërëb sàngam bërëb sàngam xëy na lañ ci am lañ ci bëgg duñ ko am waxtu ne ngay dégg naan jiw bi baax na dem naag demut ak jaay nañ ko nangam nangam. li ñu war a mun a def mooy coopérative yi nga xam ne si son organisées wala ñu créer ay sociétés yi nga xam ne si seen liggéey lenn rek la mooy defar jiw bay jiw loolu rek mooy seen liggéey ñoo xam ne danañ leen mën a saytu dinañ mën a jël agronome yi nga xam ne ñu ngi chômé ñu jël leen ñu liggéey mais tant que ñu ngi tourné nii di def nii duñ ci am lu ñu neex te béykat bi wax dëgg yàlla mi kàddu yi ni mel moom jiital COPEGA mi ngi ko yëkkati ginnaaw bi nga xamante ni sax mi ngi doon amal tàmbalim joxe jiwu mi jagleel ko ñaari junni ci ay producteurs yu bokk ci coopérative bu tey bañ a seen. ni ñu koy defee at bu jot rek dañuy ut ay partenaires ut ay pexe yoo xam ne ci la ñuy utee ay moyens pour jënd ay semences ay engrais pour jox ko producteurs yi pour dimbale leen ko mu nekk ndollan ci ci ñoom. donc ci ci loolu lañ nekk ba nga xam ne ren aussi du gulet ñu koy def te ñi ngi sélectionné aussi ñi nga xam ne ñooy béykat yi gën a mag yi gën a rafet mm, doxalin ak ñun ñu owaat leen tey am na ñeneen ci yokk sax parce que sooy gis lu rafet nit di ko def nii da koy xemeem ñu owaat leen ñoo tamit ñu ñëw di ci liggéey suñu programme ren sur 1000 hectares la entre dugub ak ak gerte ci loolu la ñuy tàmbalee nii di ko joxe gerte gi dañuy joxe gerte dañuy joxe engrais suñ la joxee jiw après dañ la jox engrais pour accompagner la pour nga mën a dem parce que ni ñu ko daan defee rek dañ koy joxe sans intérêt amul lenn lu ñu ciy teg loo xam ne intérêt la nañ la ko joxe dañuy d'accord ci benn prix bi nga xam ne aussi suñ ko defee suñ paree nga calculer li nga xam ne moom lañ la joxoon ak prix bi nga xam ne moom lañ d'accord nga jox ñu ko gerte wala nga jox ko dugub. li ni mel tax na ba tamit sax kooku nga xam ne moo di Habib Thiam daal di woowaat état bu Sénégal ngir mu jàppale bu baax li nga xamante ni moom moo di coopérative yi jëm ci njoxem semence bi nga xamante ni ñu ngi koy amal ngir ñu daal di mën a am campagne agricole bu mucc ayib ci l'application.